الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi gërëm yàlla ci tawfiq ji mu ñu defal ba ñu dellu siwaat ñaareel bi yoon ci dige boo xam ni dige woon nañ ko ci waxtaanee waa ji nga xam ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa dafa boole ak feeñam ci mandarga yi wane ni àddina jeex xam ngeen ni ci suñu daje yiñ doon am ci xutba yiñ doon am ñu ngi waxtaanee ay tomb yoo xam ni dafay jonjonteeg pas-pas te su ma nee pas-pas maa ngi ci namm lu dëppoog la yonent bi façon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne loolee mooy gaal ak yonent yàlla nuux gi te jamonoy tuufaan ku ca yéeg mucc nga ba faaw ku ca yéegul sànku nga perte nga te boo faatoo di dem jahannam woote boobu mooy woote pas-pas te dafa bokk ci mandargay wérug pas-pas mooy gëm juróomi ponk yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale ni muy ponki ngëm juróomi ponk yooyu mbokk yi bokk na ca gëm ni àllaaxira dina am bis day ñëw sunu borom tukkal addina bi yépp dajale jaami al awwalina wal axirin ñoom ñépp fi saidin waxid kenn ku ci nekk sunu borom dina la xisaab ci say jëf ku jëf ay jëf yu baax sunu borom berndeele ko àjjana yal na yàlla boole ñu ca ñooña ku jëf ay jëfi safaan sunu borom rëqi gëm ca biir sawara yal na sunu borom boole ñu musal ca ñooña bokk na ci mandarga yi wane ni jullit bi gëm na bis penc bépp mandarga bu ñu la bii kat day wane ni bis penc jege si na te bàyyi koo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam booba mandarga da koy gëm ginnaaw bu ñu xamee ni feeñu masiixu dajjal bokk na ci màndarga yi gën a mag yiy wane ni àddina mi ngi jeex comme ni ma leen ko waxee woon ten toxal ko jëlee ko ci alxaafid ibnu xajar te it moom it mu nettali ay boromi xam-xam yu bari nettali loola ni feeñu masiixu dajjaal day nekk njaal beenuk feeñuk mandarga yu mag yi kon bokk na ci mandarga yooyu comme ni ma ko diggee woon mooy feeñuk almahdi kon mbokk yi ginnaaw dige booba waxtaanee ko dana am solo lool comme mbir la muy jonjonte ak pas-pas ci jamono joo xam ni dafa jaadu ñu ñoddiwaat xeet wi wommataat umma bi delloo leen ca sa lëfeen yonent façon sallallahu alayhi wa alihi mooy lii tax nit ki texe àllaaxira yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim almahdi comme ni ma ko junjee woon waxtaanee ko dafay am solo ngir loola waaye dafay am solo ngir dañoo toll ci jamono joo xam ay mahdi yu bare bari dañoo feeñ ci jamono di woote woo ñooy mahdi ba su fekkoon kenn rek ko woote woo sax mbir moomu amut kon damay wax ni mbir yooye nga xam ni ay nit yu bari ñoo koy wootee ah yuxdiina ah butlaanuha an ibtaaliha yàqub wax yooyee doy na sëkk dalil ci ñuy indiwaat ay wax di wane loolu dafa yàqu ndax mahdi yi kenn lay doon te xam ngeen ni jamono ji ay nit yu bare bare ñu ngi woote woon nekkul mahdi isa tamit kadalik te danañ ci ñëw incha allah ci xutba yii di ñëw waaye ay nit yu bare ñu ngi woote woote ay ñooy isa te bu ngeen fàttalikoo newoon naa leen la budda an naj'ala al asaabi ala nuqat kay yattadiha al amr faw rek bu ñuy leeral nit yi dañ koy jël teg ko ci kaw tomb yi nit ñiy gis ndax mu leer am na nit ñoo xam ni junj jaano du doy am na nit ñoo xam ni bëgg nañ mbaax dañoo gisul ku leen waxal kon dafa jaadu ñiy wax mbir yi ñuy tudd tomb yi muy leer ngir ñu xam ni lii la du lee lële lii kon ci bunt boobu looloo tax insha allah bi tawfiqi rabbina subhana danañu leeral ci ji ci topp ak ji ci toppaat lu jëm ci feeñ ak mahdi wala feeñ ak mahdi ak wàccuk isa alayhi salaam kon mbokk yi jamono boo xam ne ay nit ñu ngi feeñ di woote wa mahdi fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melal na nu mahdi comme ni ñu melalee isa comme ni ñu melalee masihu dajjal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ci xadis boo xam ne imaam abi daawud sunan imaamu tirmidi tamit nettali ko ci jaamia wa kadalika cheikh nasirul albani bokk na ci ñi ko wéral te mi ngi ko wéralee ci saxiixul jaamia mu ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne ñu ngi ko toxal jëlee ko ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi nee na laa taqumu saa addina du jeex mukk addina du tukki am na beneen riwaay dañu laa tanqadi dunya mooy addina du jeex lu dul yàlla dana yeewal dana jiital dana feeyal benn waay boo xam ni dana jiite arab yi bal sax damay wax dana jiite nit ñëpp koo xam ni ci samaw askan lay bokk turam na mu tudd ak ni mu tudd benn la waa jooju Muhammad lay tudd comme ni nga xam ne sunu yonent xam nañ ni Muhammad la tudd waa jooju baayam Abdullah lay tudd comme ni baayu yonent bi tuddee Abdullah kon mbokk yi bàyyi leen benn tomba boobu Mahdi fu ngeen ko déggati bokk na ci mandarga yi ñu koy xàmmee mooy moom Muhammad lay tudd baayam Abdallah lay tudd ni baayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee Abdallah kenn ku woote wa Mahdi ak fu mu mën fee te ñaari mbir yii bi nga ko seetloo ci moom gisoo ko ko ka dajjaalu min ad-daj min ad-dajaaji la ko ka ab saay saay la ci saay ak ku mu mën a doon comme ni ma leen ko waxee ci xutba ju ak ku mu léeg-léeg nit ñi dañuy taqdis asxaas yi wala ñuy taqdis amakin yi ba tax yenn mbir yi dañu koy tiita wax wala ñu koy ragal wax déedéet njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam Xasanul Basri doon wax yàlla moo ngadd ci loosu ñu xam ngir mbir yi nan ko jottali comme ni ko yàlla wàccee akub yonenteem leeralee ko noonu la tubayyinunnahu linnaas wala taktumuuna yàlla dafa diggante ak ñi xam nanu jottali nit ñi te bañ koo nëbb te baal bokk ci matut jottali mooy nit ñi li nga leen di wax mu leer ku woote woo mahdi ak fu mu mën a feeñ ak ku mu mën a doon te tuddul muhammad ci bandarga yiñ koy ràññee baayam tuddul abdallah ko ko dajjalul min addajaaji la ak ku mu mën a doon yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kon ab muhammad lay tudd baayam abdallah lay tudd comme ni ngeen ko xamee ci askanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na beneen riwaay dane law lam yabqa min addunia illa yawmun la tawala allahu daaka al yawm bu nekk ci coppax lu tukki dara desut lu dul àddina tukki lu dul fan yàlla dina ñoom fan boobu guddal ko ba gudd ngir waa ji mën a feeñ yàlla yabal benn waay boo ni min ci man lay bokk aw min ahli bayti ci askan lay bokk yonent yàlla bi ne ne yuwaasiu ismi turam ak sama turu ñooy nuroo ci turu baayam ak sama turu baay ñooy nuroo mu teg ci ne yamlawul arda qittan wa adla bu feeñee ginnaaw bu ñu gisee mandarga bu njëkk mooy turam ak turu Muhammad ñooy nuroo turu baayam ak turu yi baayu Muhammad ñooy nuroo nga teg ci ne yamlawul arda qittan wa adla gis ne caay-caay mbonte gi yàqute gi péttirlu gi gii nga gis tey yooyee fi jóge su boobaa kon mbokk ku feeñ di woote wa mahdi te ba léegi caay-caay geeg mbonte gaa ngi fi ak yàqute gi su boobaa dañu xam ni ko ko dajjal min ad-dajjaji la waaye nekkul mahdi yéen yàlla bi ne ni àddina feesee nii ak caay-caay ak mbonte ak yàqute fetteerlu noonu la bi waajoo ji di jëlee bi iznillah caay-caay geeg yàqute geeg mbonte gi ak fetteerlu bi kon loolu fii mi ngi fi des rek kay woote wa mahdi du kooku imam ahmad mi ngi nettali abi daawud mi ngi nettali ci sunan imam xaakim ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abi saidin alxudri te wér na yonti yàlla mu ne al mahdi yu minni mahdi ci samaw askan lay bokk déglul ba léegi mandarga yi mu ni ajalal jabha ajalal jabha mooy jëbi dafa rëy lool lenn ci borom xam-xam ñu waaye ajalal jabha dañuy gën a tekki mooy jëbi dafa yaatu ànd ak dafa leer ajalal jabha mooy dafa leer boo xoolee ca bi li ko tiim ci kaw amul karaw dafa leer boo dikkee karaw ko rafet gaa nga tàmbalee ca gannaaw nag jëm kon mahdi noonu lay mel ku ko woote buñ la xoolee na nga mel teg leer googa amul ci yow ak mandarga yële kooko du ko yént yàlla bi mu ni aqnal anfi bakkan bi dafa rafet dañuy jàtt taxaw ku besam tàppandaar mu tàcc doo ko bakkanam daf ni jàtt te doo dafa bokk ci melokaan yi nga xam ne day génn taaru kanam bakkan bi na dañuy jàpp taxaw rafet moom mahdi mu nekk waaju yàlla may taar mu nekk waaju leer ci amul karaw leer nañ li ci des moo am kawar yéen yàlla mu ne yamlawul arda qittan wa adla kama muliat dulban wa jawra mu teg ci tey mu ne yamliku sab'a sinin addina bi ñu ngi fee teg mbonte noonu la ciy dindee mbonte gi bi isnillah mbaax taxaw bi waaye mu ne juróom-ñaari at na fi am kon mbokk ñiy woote woo Mahdi te ëppal nañ fi juróom-ñaari at ñooña nit ñi nañ xam ni duñ ko Mahdi nag tey moom ñi koy woote woo bari nañ lool comme ñiy woote waa Isa ni nu bare bal damay wax ni àddina bi yëpp boo demee Masra benn nga fa waaye ay demee Soudan du ma wax waaye ay ña bal damay Mahdi yu bari ñu ngi feeñ bal ni li ma doon wax laay tomb yi teg leen ci baaraam ngir mu leer bal fii suñu réew mi ay nit ñu ngi fi wootoo mahdi fii ay nit ñu ngi fi wootoo mahdi mii faw ñu yàlla subhanahu wa taala dénk ñu mën a leeral faw ñu leeral ko nit ñi ngir nit ñi génn cim lënt lënt bi mooy fii ci réew mi ay nit ñu ko fi wootoo boo demee fii yow am na ñu ko ko faral woote woo faatuna alayhi min allahi ma yastaxiq fii ci tëngéej gi am na ko ko fi doon woote ku sant ngom dégg naa faatu na ak taalibeem moo ko ko moo fa remplacé fële ca yi ga ma dëkkoon doog a tuxu bi am na ku fa doon woote ab tukulóor la faatoo ko yàlla na yàlla gindi ko xam nga lii moo lay ne ay caaxaan la Mahdi mënta nekk téeméer ak juróom-ñaar kenn kuy woote woo Mahdi ak koo mën a doon bal sax nit ñi léeg-léeg dañuy def tanaaxub te duñ ko yëg xam nga day tanaaxub gi mooy am na ñu koy woote woo fii ci réew mi dañuy woote woo Isa di woote woo déglul bu baax ngir nga xam ni mbir yi wallahi ay tappale da cee laxas te nit ñi xamuñu xam ngeen ni daa ñoo xam dañuy jàpp ni Isa ak Mahdi kenn ki la bal loolu tanaqud la Isa ak Mahdi mënuñoo nekk kenn ki am na fii ñuy woote waa Isa ak Mahdi dañ ne Isa mooy Mahdi te Isa mënta nekk Mahdi ngir ay mbir yu bari yoo xam ni balaa yi xutba ngeen ko xam ñeneen ñi ni déedéet Mahdi moo jiitoon waaye moo jur Isa loolu mënta nekk ndax Isa ci boppam fi lay fekk Mahdi kon jurantewul kon ñaar yëpp benn boo ci jël li arab yi naan bañ jàpp ni moo jotane boobaa ca gën a wex kon woote woo mahdi ci boppam su fekkee melokaan yi am na ca dafay wax ni kon ñooñee di woote woo mahdi ak ñu mën a doon su fekkee ka koy wax kañ koy jiñ moo kon woote woo kooka juum na la mu wax amut su fekkee nit ñi ñoo ko ko jiñ nit ñi ngi koy tooñ te tooñ baaxut kon mbokk yi mahdi ci melokaan yii may wax ca lay wàccee tey lii may wax moom mooy am ci kaw suuf bu kooku du mahdi juróom-ñaari at ku ko fi weesal ku ko yeesal doo ko comme ñëw na ci riwaaya nag yéen tam ne sabaan aw samaaniyan juróom-ñaar wala juróom-ñett waaye ku ko yeesal di ñeent maa ngi demee mbaa juróom doo ko ku ko ëppal jëm fukk nangam ci doo ko kon lii mooy waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam imam ahmad mi ngi nettali ci musnad imam hakim ci euh, mustadrak ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Ali ibn Abi Talib mu ni yonent yàlla bi ne al mahdi minna ahlal bayt mahdi ci lay bokk mu ni yuslihuhu llahu fi layla yàlla moo koy préparé bam ni cocc te loolu lépp ci génn guddi la ko yàllay defaree barab boobu damay wax ni am na ay boromi xam-xam ñu ñuy askane xam-xam te déglu bu baax ñoo xam ne dañuy dàq ni mahdi amut lan moo tax ñuy dàq ni mahdi amut dañuy wax ni nekkul ci Buxaari nekkul ci muslim xadis yi ci ñëw nekkul ci Buxaari nekkul ci muslim ñaareel bu ñu ne xadis yi xadis ahad la te xam ngeen xadis ahad ci borom xam-xam yi jàng xam-xamu xadis dañuy wax ni mooy xadis boo xam xamante ni nekkul mutawaatir ahad mooy loo xam ni genn càllale rek la am ñenn rek kenn rek moo ko solo mutawaatir mooy loo xam ni Moussa solo la ko Ibrahima solo ko ko kon lii wax dëgg yàlla bari waaye gi war naa tax ñu xam ni wér la ci gàttal. waaye damay wax ni ñaar yooyu yëpp benn ci mu benn moo ci wérul nekkul ci Buxaari ak Muslim loolu tekkiwul ni lu wérul lu wér ci Buxaari ak Muslim la war a nekk ndax Buxaari ak Muslim ay xadis ñëw na ca doonte tuddul Mahdi direct waaye junj na ko ñaareel mooy Buxaari ci boppam bi mu taalee fii Buxaari ba noppi lam ca teg xool li mu wax taalib naa saxe ba noppi li ma ci andiwul ci ay xadis yu wér moo ëpp lii ma indi kon bàyyi naa lu toll ni li ma indi te lu tee nga indi ko Buxaari muy damay bañ téere bi gën a gudd kon su fekkee dañoo jàpp ne lu ñëwul ci Buxaari wér ak muslim maa ngi jàpp ne kon liñ nar a sànni ci diine ka bari sunan abi daawud sunan tirmidi ibni maaja imaamu nasaayi imaamu bayhaqi imaamu daara qutni masaanid yi maajim yi mustadrakaat yi ay kàggu ci kàggu sunna yi dafa fees del بل الإمام الشوكاني أه؟ وكذلك الإمام السفاريني الإمام يمك أئمة أهل السنة والجماعة dañuy wax ni ahadithul mahdi ahadith la yoo xam mutawatir la dafa bari ba jéggi dayoo bal am na ay boromi xam-xam sax ñu ci taalib téere di dajale xadis yi wér bàyyi koo ci sa salam di wax ci mahdi kon kooku benn la beneen bi ci mooy fii ci réew mi am na ñoo xam ne dañ naan ki ñu yore mooy mahdi boo leen ana seen masihu dajjal ñu ne masihu dajjal mooy Hitler te Mahdi bi rey na Hitler ki nekk fii nu muy reyee Hitler ki nekk fii lu mu jot ak Hitler ma di ko rey Hitler lu mu jot ak Mahdi Hitler Hitler boppam la Mahdi mooy kii may wax kon loola ay naxasaka ndaga ki tappale la gaa yi nga xamante ni dañoo dugg ci biir ndaa tëj ko ba a gis jant bi ñoom ngay wax loolu ñu koy gëm waaye ñi nangoo déglu njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola boo leen ko waxee dañuy xam ne ay tappale la te wallahi li gën a métti ci xol mooy lii may wax bu fekkee lu tuuti la ci am na ñoo xam ne aqida lañ ko def dañ koo fas nampatal ko toqantal ci seeni doom ba loo leen wax lu dul lii gëmuñu ko yal na yàlla subhanahu wa taala gindi képp ku gindee koo gëtt kon mahdi nii lay mel tey ña koy dàq tamit loola tamit amut wérul donte lenn ci ay boromi xam-xam wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ay boromi xam-xam lan nag waaye foofa dañ caa juum kullu bni aadama xataa tey kullu jawaadin sawfa yakbu fas moom lu mu gaaw gaaw di daw bis danañu mu a tal waaye wax jooju ñenn ñi wax ni mahdi ci boppam amut waaye ay xaadisam wérul ndax mu aaxaat la loola wax jooju njuumte la kon yonent saa mu mun yuslihu llahu fi layla ci génn guddi la ko yàllay waajal imam Jumash Ali Qari soo delloo ci téeréem bi ñuy wax Mirqaatul Mafatih bi mu yegg ci sarx xadis bi dani mu ni yuslihuhu llahu fi layla ay yuslihu amrahu yàlla day yéwénal ay mbiram yëkkati aw turam ba nit ñi di ko dégg ci genn guddi wala ci benn heure ba dafay mel ni sax nit ñi dañuy dëppoo nit ñi dañuy mel ni ak dëppoo gu yàlla roof ci xol nit ñi ngir ñu gëm ni kii kat crise yi ñu nekk ci moy yàlla yàlla da koy jaarale ci loxo pour mu jóge fi mu di ña nga xam ni ñoo doon jiite jullit ñi ci jamono jooje di ay mbooloo yu wuute ñoom ñëpp danañ dëppoo ci feeñuk mahdi waaye dëppoo tamit ci mahdi mii kat moo war a jiite ba tax ci borom xam-xam yi dañuy wax ni bokk na ci màndarga yi nga xam ni bu feeñee dañuy wan ni kii mooy mahdi yéen ci yàlla beneen su feeñee mi ngi feeñee ci kaaba ga wax dëgg yàlla kon koy woote ñëw ba Sénégal fii di ko wan yaa ngi bëgg a weeru na yéen ci yàlla mu ni ca kaaba ga lay feeñ nit ñi danañ ko dal ba jaayanteeg moom te bu ñuy jaayanteeg moom day bañ ñu forcé ko jaayanteeg moom jaayante wuñu mu nekk amir jaayante wuñu ngir mu nekk nabi jaayante wuñu ngir mu nekk maasum dañoo jaayanteeg moom ngir mu nekk ab njiit ci njiitu jullit ñi ngir jàppalanteeg ñoom ngir gindi leen wommat leen ila siraat allahi almustaqim yonent bi nee na su feeñee dafa am ab mbooloo muy génn dem di xeex ak moom mbooloo moom bu ñu dikkee ba palaas bu ñuy wax bay daa fa la yàlla yi mëtaxal suuf si su ma mëtaxee suuf si ñoom ñëpp ñu daal di faatu loolu bokk na ci mandarga yi ñu ne ah kon de kooku ñu jëmoon kat mahdi la ak mandarga yii nga gis feeñee ànd ak moom ñu xam ne kii mooy mahdi kon Cheikh Mouhamed Hassan mi ngi wax ni yuhayiuhu llahu tabaraka wa taala li yaquuda al umma kullaha fi hadihi lfitani alxaalika fitna yu métti yi ñuy dund crise mooy yàlla biñ toll crise bi di lu ñu toll tey tembe mu ni yàlla dafay def mu ñëw yàlla préparé ko su ko préparé ngir mu jiite xeet wi yëpp yëkkati leen génn leen ci musiba yu métti yooyu nga xam ne moom la ñuy dund te loolu lépp mi ngi am nag bi idnillahi subhana mu ni dafay jiite xilaafa goo xam ni dafay jiite jiite goo xam ni dafay tege ci ala minhaji nubuwa ca fa nga xamante ni mooy doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak Aboubacar ak Omar ak Ousmane nee na lii nag nekkul ay léeb waaye nekkul ay waxan nekkul ay xalaatam moom waaye wax la ju yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ma ne ahlu sunna wal jamaa di mbooloo mooma nga xam ni saa bu nit ñi juuyoo ñoom ñoo doy pour at déglu bu baax ahlu sunna wal jamaa ñu déglu ahlul hadith mooy ñi nga xam ni foo leen fekk ba yonente bi yendoo barab tàngam lu mu fa yendoo mooy seen yitte foo leen fekk ba nangam lu ci yonente bi wax foo leen fekk la yonente bi wax la ñuy soxla ci wuute bu amee ñoo ñu tudd ahlul asar mooy suñu gisut la yonente lu saxaaba ya wax ñoo nga xam ne alfirqatu naajiya ñooy kuréel bi nga xam ne lu cànkute bari ci kaw suuf yàlla garantil na leen ñoom dañuy mucc duñ bokk ci caaxaan yeeg tappaleeg naxas ka ndang yi ñoo nga ñoom la ñu tuddee taifatul mansuura muy kuréel bi nga xam ne la yàlla yi dimbali yéen yàlla bi nee na lu àddina jaxasoo jaxasoo du ñàkk ab kuréel ab mbooloo ab kuréel ku mbooloo su ma ko waxee nag nekkul ñu adhéré wu ci mbooloo tuddee seen bopp ñoom diw dé ñi mën nañu nekk Chine ñi nekk Taïwan ñi nekk fii sax ci Sénégal bii waaye ay nit lañ yoo xam ne dañuy tax ci dëkk muñ ca màtt ca seen i dëgër dëgër ca ko ku leen xas faalewuñ la ku leen tagg loolu lañ ak ka leen xas lañu yamale ñu sax ci njub ak mbaax dëgër ca gëm ko nekk ca ba keroog njubal yàlla ba keroog mbiram yàlla di leen dikkal te ñoom ci mbir moom yàlla yàlla sotala boo leen ca ñooñu te wallaahi ñooñu ñooy ñu teg seen tànk ca la yonente bi tegoon seen a sant mbir moom di mbirum ay sant alal ak i kuréel ak ñoom waa kër diw ak ñoom sëti diw déedéet mbir mi mbirum nekk ci sa tànk kese la ku ko def rek ca nga bokk insha allah kon yonente bi saa sallam moo digee woon lu mel noonu ñooñu yàlla dina leen dimbali kuréel boobu nga xam ni saa bu jaxasoo amee ñoom ñoo doy pour àtte ndax ñoo gën a xam ñeneen ñu dut ñoom la yonente bi waxoon témwér ñooñu dëppoo nañ ci ni mahdi ci doomi xasan doomu ali lay bàyyi xam nga ne kon bii amul sant bii ñu xam ne bii boo ko woon wax dëgg yàlla yaa ngi bëgg a weeru nag waa joo xam ne dañuy kawe mën war a feeñ nga màgg nga ñëw ba Sénégal nga leen feeñee wax xamul woon dara sax lii buñ ko gisee kon yaa ngi bëgg a weer sa bopp kon yéen bi sa sallam ci njàngale li mu jàngale borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ci sëti doomi sëti Xasan doomu Ali di doom sëtub yonente bi saa sallam te lay bàyyi ko ci aaxiru zaman ci jeexitalu jamono lay feeñ dafay feesal kaw suuf maante ak njub comme ni fi caay-caay ak yàqute feeñee mbindeef lay doon nag ci mbindeef yi du doon ab yonent de du doon malaat nit lay doon comme yow yusbihu llahu fi layla yéen ci borom xam-xam yi ñu ngi wax ni xëy na sa dara nekk ci leneen lu tut noonu yàlla baal ko tuubal ko defar ko ci guddi gi am nañu wax loolu waaye loolu gënta wér li gën a wér mooy maanaam mbirum ni muy jékki-jékki ne rajax ci nit ñi rek mbir la moo xam ne préparation amu ci dara amu ci yàlla day yegg-yegg ci benn guddi rek waa ji mi ngi foo di dund nit gis ko xam ko waaye benn guddi rek yàlla préparé ko waajal ko defar ko ba mel na mu war a mel mën a jiite xeet bi yor sapaate mën leen a jiite suñu waroon root ci xol nit ñi ñu bëgg ko gëm ko yëg ni kii moo war a jiite ñu dox ci ginnaawam te loolu lépp ci génn guddi lay am te tafsir boobu moom mooy li gën a dëgër incha allah ala afax axwaal beneen bi ci des mooy xam koo xam maasum la maasum mooy ku yor garaatu yonent nga xam ne moom du juum lu de def rek noonu la déedéet du ko nit la comme nit ñi te du woote ak yonent ndax laa nabiya baada muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp li koy dëggal nag li ahmad solo ci musnad ay imaamu bayhaqi ko ci dalailu nubuwa te cheikh albani mu ne xadis la bu ci xadis buñ jëlee ci ka nga xam ne moo nekkoon poste secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Xuzayfa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه والله إذا شاء أن يرفعه yonent bi day dana fi nekk la soob yàlla mu nekk mooy yonent bi dana fi nekk sallallahu alayhi wa sallam di jiite nekk bu yonent lu diir ba mu toll ba mu soob mu am juróom-benn fukki at ak ñett fekk soob na suñu borom mu faatu déglul baax su yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na summa takunu xilaafatun ala minhaji nubuwa ak xilaafa ñëw xilaaf la boo xam day jub xocc mel ni yonent bi fi nekk ndax mi ngi tege ca mën xëj ba yonent bi tëraloon ni nii la ñoom Aboubacar ca leen jaar ñoom Omar ca leen jaar ñoom Osman ca leen jaar ñoom Ali ca leen jaar yonent bi ko ci ay xadis yonent yàlla bi nee na te loolu lépp xam ngeen ni taw bi ko dafay laaj waxtu bu bare bari waaye ñi jàng siira ñi jàng taarixul islam xam na lii may wax yéen yàlla ne sallallahu alayhi wasallam su ma sama yarfa wala yàlla yëkkati ko ila saam yarfa bu ko soobee mu ni su ma takoonu mulkan aabbo nguur guy màtt daal di commencé ñëw nag nguur guy màtt ku jaar jàng taarixul islam Abubakar jóge fi Omar jóge Osman jóge Ali jóge fi Muawiya jóge fi ah Yazid doom jóge fi gaa yooyu jóge fi te jeeriñ tal ko dawla abbasiye ñëw te biir dawla abbasiye dawla abbasiye jeex doo du wàññi am dawla osmaniya dawla fatimiyya dem gis nga yooyu da nga ciy gis tigi nag la yan di wax mooy nguur guy màcc nag nguur boo xam ni moom wax dëgg yàlla ak jagate mën ta baati ñu tuddee la nguur guy màccaate ngir ay musiba yu bare bare yoo xamante ni xewal na ca loola nit li ko dana jël lu bari ci ay wax yéen yàlla ne loola nekk ba mu soob suñu borom suñu borom jëlee ko fi ah yéen yàlla mu ni sallallahu alayhi wa sallam ah, summa takunu mulkan jabriyan nguur guy forcé waate nag commencé am defal nangam baa nga rëq sa ndigg damay wax ne loolu de xam naa xaw ma ban la waaye xam naa ni bii ñu toll dina mucc ci moom bii ñu toll moom mucc ci moom defal nangam baa ma rëq sa ndigg defal nangam baa ma tëjee ci biir kasa bi yéen yàlla mu ni mu commencé am mu ni ban soob suñu borom bu yëkkati ko bii nag bu fi jógee moo nuy wan ni kon mbir maa ngi jege am yéen yàlla mu ni su paree nag yàlla daal di indiwaat summa takunu xilaafa ala minhaaju nubuwa ak xilaafa ñëwaat nag boo xam ne ma nga tege ca mën hëj ba yàlla bi rëddoon ak tànkam sallallahu alayhi wa alihi nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu defal ñu tawfiq ñu bokk ci ñuy dund loolee kon mahdi noonu lay mel waaye jamonom tamit nii lay mel comme ni ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam nit ñi nan la ñuy mel jamono bi nan lay mel ci jamonoy mahdi loolu tamit ci mandarga yi ñuy tax ñu gën a xam mahdi suñ ko gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ci xadis boo xam ne abi saidin al xudri moo ko solo mu ni mahdi de ci sama xeet lay bokk waaye yàlla daf koy baaxe jamono day tombeeg jamono asamaan si rutututa ki taw ku feeñ tombeeg bekkoor doo ko dawal xamal ni doo ko sa programme bi nga tëraloon pour leeral ko nit ñi yàqu na ku ñëw rek tombeeg bekkoor rek moom demal xamante ni doonoo doonatoo ko yàlla da koy ja tombele jamono ju asamaan si rututati ak taw yàlla day barkeel gàncax gi barke ba yonent yaa ngi koy mis yonent baa ngi koy misal dinañ dem ba benn doomu grenade ab ay ponkal ay diis ponkal man koo bokk lekk te du jeex wa hal samiatum fi dunia nnaasi hada ndax ba kenn juddoo ba léegi mës naa gis ci àddinaam wala mu dégg ci dëkk benn doomab garanaat boo xam ni fukki ponkal dañ koo tiim lekk suur mu def déedéet loolu ci jamonoy mahdi lay amee yént yàlla bi ne ne yàlla day barkeel alal day bari lool bëgg am ca ñàkk bëgg am ca ban day tombeeg jamono joo xam ni da nga yore sarax nga tiim nit ki naa ko ngir yàlla dama lay ñaan ngir yàlla dimbale ma nga jël sama sarax bi lu tax soxlawu ndax kuy jël sarax amatu allahu akbar ba alal day barkeel ba damay da ngay génne azakalaax boo am koo ko jox nga dajeeg nit naa ko ngir yàlla dimbale ma ngir yàlla nga jël sama sarax bi ndax awma ku ma ko jox parce que moom soxlawu ko ba mu koy jox kon faaw nga neexal ko mu doog koy jël loolu kéemaan la moo tax saabu bu fi jógee rek caay caay ñëwaat àddina doog cee tukki yonent yàlla bi na sallallahu alayhi wa sallam maanaam dina juróom ñaari at am riwaaya bu ni juróom ñetti at ci jamonoom comme ni ko imam ju mag alxaafid ibnu kathir di waxee mu ni jamonoom jamono la joo xam ni mbay mi day nangu alal ji bari diine taxaw pouvoir am nekk l'islam noon bi néew doole nekk ku yonjox yiw bari lool ma ngay feeñee màkk nit ñi di jaayanteeg moom muy bañ loolu soo demee ci an nihaaya alxaafid ibnu kathir moo ko taalif ci jeexintalu jamono ya cay xew boo dee ma ngi wax wax jooju borom barke day bari lool asamaan di wàcce barke suuf di génne barke alal daal di bari melokaan woo xam ne yàlla subhanahu wa taala moom rek moo xam nu mel kon maa ngi yaakaar ne yéen a ngi fàttaliku ci xadis ab na waasi bin samaan ci qissa masiixu dajjal am na barab bu ma yëgsi woon ma ne leen xadis bi fii laa koy dogee na xadis bi dama ko xaaj xaaju ñetti xaaj benn xaaj bi maa ngi ko soxla woon ca xissa masiixu dajjal déggoon ngeen gen beneen xaaj bi danaa ko soxla ca xissab isa benn xaaj bi maa ngi koy soxla tey jii xaaj boobu mooy ban mooy bi dëppoog Mahdi yonent yàlla bi salaa sallam mu ni ginnaaw faatu euh, masihu dajjal yaajuuj ak maajuuj tamit ñu dee waxoon naa leen ay sax yu toll ni loosu giléem ñoom la yàllay wàcc ci kaw suuf ñoo leen di faat fii la ñuy jaar faat leen suñ leen faate ñu fees dell ci kaw suuf buñ feete del ci kaw suuf xeeñal ba amul foo mën a siq ñaari jéego lu dul ñu ngi yàlla daal di yebal ab taw bu bàyyi ko ci asamaan taw bu bari lool avant taw bi yàlla da yebal ay picc picc yooyu ñëw di coppet di sànni ji fu ñuy sànni ji allahu alam di coppet di sànni ji ba mu des ba mu jeex waaye fuñ tuddoon salte yaa nga fa xet bi yàlla yebal ab taw taw bi bu ñëwee day setal kaw suuf si comme ñi ngay jëlee soleil setal sa seetu ba mu set wecc comme ni ko yonent misaale sallallahu alayhi su loolu amee nag ah léegi nag asamaan tàmbalee taw suuf tàmbalee génne barke yonent yàlla bi nee na gis nga ah, suuf si ni ko an bi ci li ma la dénkoon ci xeeti gàncax génne lépp ah mu ni waruddi barakati barke bi nekkoon ci suuf génne ko yonent yàlla bi nee na fa yawma idin taakulu l isaabatu min annaas wala taakulu l isaaba min arrummaan wa yastadilluuna bi qixfiha allahu akbar mu ni benn doomu garanaat mbooloo am mbooloo dañ koy tiim lekk ca dool xollit ba boo ko jëlee tàllal ko mat na bâche allahu akbar boobu doom nu muy toll loolu mi ngi am ci jamono jooju imam ahmad mi ngi nettali ci musnad mu ne yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ah ñun yonent yi de ñun ñëpp a wuute waaye sunu diine ji moom genn la mu ne man maa leen gën a yay ci isa ndax sama digganteeg moom ak yonent doxu fa mu ne moom de ci yéen lay wàcc wax daal ciy teg ni su wàccee mooy alak masiixu dajjal yént yàlla bi nee na su paree ca loola yàlla dana barkeel kaw suuf gàncax day ñëw waaye li gën a kéemaane mooy insécurité ci boppam day daal di dem gis nga jamono jooju jëlul jënd xuma ay gon lañ koy wax ay pistolet yooyu de jëru ko jërul nga bu jaati pour aaru déedéet jëru ko jërul nga ay xeej ak yàq jëru ko jërul ngay yor arme jëru ko ndax luñ doon doyeeti arme dootul amati ci kaw suuf allahu akbar jàmm day am ba da gis benn waaye mu ne man ñeenti at a ngi nii gisuma ñuy xeex gisuma ñuy xuloo nga dégg benn waaye bu ne juróomi at a ngi nii dégguma ñuy xeex dégguma ñuy xuloo bal lu gën a yéeme loolu yonent yàlla mu ni ah da gis li nga xamante ni moom mooy maanaam gaynde yi nekk ca biir gileem ya gaynde mu mën a fàddaate bi ah dem ca biir mbooloom gileem ma di kaf ak ñoom di faw ñoom parce que fàddaateeg wéqaate daa xew yi allahu akbar yent yàlla bi nee na seen till wala njàppaan dem ca biir bëy ya wala ca xar ya di cëpp-cëppeeg ñoom te fàtte du am ndax fàddaate xew yi na yent yàlla bi da ngay gis benn xale ponkalum njàngoor xam ngeen njàngoor jaan ponkalum jaan joo xam ni ponkalum nit mu ko seen ndaw yent yàlla da gis benn xale di foog moom ba jël loxo bi naan nii dugal ci gémmiñ gi te du ko lor parce que yàlla day rocc ci lu amoon tooke sunu borom day dindi tooke ci mattaati xew yi nag ndax dégg nañ ci kaw suuf jamono ju mel nii déedéet moo tax jamono ji wax dëgg yàlla képp kuy woote wa Mahdi waa muy woote waa Isa damay wax ni mbir yii kat dëgg dëgg nag buñ ko waxee dalay gàcceel nag ndax yii yëpp dara amu ci kon li am téwér mooy Mahdi ci boppam ab nit lay doon ci askanu Muhammad lay bopp Muhammad lay tudd baayam Abdallah lay tudd Makka lay lañ koy jaayantee muy bañ dafa leel bakkan bu taxaw la yor rafet lool jamono jam yi feeñ nii lay mel tey nag Isa dana julli ci ginnaaw ginnaawam Isa mi nar a waxtaane ci xutba ji ñëw yéen yàlla bi nee na waaye naka ngeen def yéen su ngeen jékki-jékkee ba mu yàgg rek Isa ibnu Maryam ni cëpp ci seen biir te fekk ki leen di jiiti ci yéen la bokk riwaayé boobu noonu la tëddee waaye boo jagloo riwaayé am na beneen riwaayé mu ni wa imaamukumul mahdi ki leen di jiiti keroog mahdi lay doon su ñëwee ci biir jàkka ma di sentir nit ñaar mbir mel ni kat curux curux am na ci biir mbooloom jàkka ci balaa muy kabaar mu geetu sentir ni Isa wàcc na mu xàmmee ko ci melokaan yi ko yonent bi waxee mu arrière ni ko yee eh, demal nga jiite ñu ndax yow kat ab yonent nga Isa ni ko déedéet demal yow lañ liqaamaloon ndax teraanga la yàlla def xeet wi seeni imam di génne ci seen biir julli googa ma doon wax ca la Isa ni ubbil leen ma bunt bi ngir mu topp ma si ab dajjal julli googa kon damay wax laa Isa biduni Mahdi wala Mahdi biduni Isa wa kadalika Masih Dajjal tamit kon melokaan yooyu nañ ci xàmmee Mahdi képp koo xam ni woote na ko te ku dul kii ñu xam ni ko waxut lu am nu ngi ñaan suñu borom boole ñu defal tawfiq leeral njub ci suñuy dënd ba ñu xam ko ñu xam ni lii mooy njub topp ko yomb na lool nu ngi ñaan suñu borom mu leeral ay caaxaan ba ñu xam ni lii mooy ay caaxaan mooy du ko yomb na lool nu ngi ñaan suñu borom mu defal na tawfiqi biir ak tawfiqi biti nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala xar kanam yii yàlla subhanahu wa taala boole ko ci yi muy xaraamal ci dugg sawara nu ngi ñaan yàlla aljanna ki xéewalam nu ngi muslu ci sawara ak i mbugalam rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab wa salli allahuma wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain